ngeen jot suñu vidéo nag foo leen toll si biir wala si biti réew da ngeen di abonné fii si Tawfekh ngeen mën a jot moo leen vidéo ne dugal mbokki taalibe ñu ngi yëkkati suñu kaddu ci bis bi ñu jagleel Cheikh Mouhamadul Amine Baara Mbacké ren mu nekk fukk ak ñeent. tey ñuy ubbee sunu kii di nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa al xalifatu am di ci teg sëñ Ahmadul Maxtaar Mbakke muy xalifatu Cheikh Mouhamadul Moustapha di ci teg sëriñ Moustapha Mbakke mi nga xam ne mooy xalifatu Cheikh Mouhamadul Amin Baara Mbakke te moom lañuy defal bis bi ah sant di gërëm njabootu sëñ Baara gépp ñi nga xam ne dañ maa jox seen kàddu euh, di jiital cant googu nag ci sëriñ Basiiru Xaadim Xawa Ba mi nga xam ne moom moo initié bis bi njabootu sëñ Baara gépp euh, nee nañ sant nañ ko gërëm nañ ko ci bis bi ndax xañ ne xañ na ne sëñ Bara à travers ces ñu bari xam nañ kuy sëñ Bara te lu baax ku ko am doo ko nëbbu da koy génne bañ mën caa jariñu te bis bu mel nii buñ ko jaglee ku baax walla ñu baax jàpp naa ne seeni juddu taxul ñu def ko seeni jukko ak seen jëf ci lislaam ak ci yoonu Cheikh Ahmadou Bamba bi loolee lañ bëgg a génnee euh, mettre ko en relief ba ñëpp xam jukko yu baax yooyee ba ku fi jóge man am loo ci jël yóbbaale mu jariñ la ci sa comportement ak sa diine ak nooy nekk taalibe ci Cheikh Ahmadou Bamba duñ guddal wax ji nag ndax euh, bu mbooloo dajee am na yu ndaw yoo xam ne nii war nañ caa mën a waxtaanee ci actualité ñëpp xam nañ ne mooy maladie bi xew dara nag bu xewee danga koy da koy situer ci contexte yu bari ko contexte bi bi gi ci am gën solo nag fii ne nii mooy le contexte spirituel mooy feebar am na mais lii du feebar balaa la te balaa bu amee rek am na lu ko waral te li ko waral c'est tout simple damay faral di wax ne jullit yi ci boppam jullit yi ci boppam ñoo nekkatut ay jullit dëgg ndax boo gisee àdduna bi li fi xew ca kenn waralu ko lu dul tubaab bu ma nee tubaab nag l'américain baa ngi ci français baa ngi ñëpp ñooñu ñëpp ñu ngi ci am nañ seen mode de vie boo xam ni moom lañ bëgg àdduna bépp jaar fi ca l'islam am na mode de vie ak ak ak ak ak société am ca lépp yàlla tracé nañu ci alquran karim sunna sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nekk fi waaye nag ñun dañ noo endoctriné aliyé nanu ba nga xam ne dañu am complex sax pratiquer suñ diine wala ñuy référé wu ci alquran karim wala sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te loolu bu ñu ko defoon xaj na am na lu bari lu suñ borom mën a teggal ndax fii ne boo xoolee ci commencé Sénégal gi rek bo boo jëloon quatre pour cent ñi nga xam ne ay imam lañ ay waaraate kan ay ustaas lañ koo ci dégg muy wax dafay exposé xam-xamam rek war na wax jë du wax joo xam ne dañ koy wax ngir lislaam wala ngir yàlla wala ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mais kenn ku ne yaa ngay tiitaroo ca ca la ngay wax des fois nga dégg débat yoo xam ni sax ñoom ci biir débat yi dañuy wax naan c'est un débat intellectuel mais finalement day dem ba mujj débat bi du am benn résultat dans la mesure où chaque fois que kenn wax benn idée dana am keneen koo xam ni au lieu que mu développé idée boobu mais beneen idée bu ko lay génnee pour te nit ñi lislaam nem la doon waree ñore ñorewu leen ko suñu boroom nag buñ ko fi bàyyee mooy yàlla gi moom dafa bari moom mooy yàlla gi dafa bari te boo xoolee tey jii li nga xam ne occidentaux yi ñu ngi koy xeex ñu ngi ko bëgg ci ci àdduna bépp mariage entre góor ak góor jigéen ak jigéen léegi banaliser nañ ko bari na bañ banaliser ko te mi ngi bari lool nag ci ci ci réew jullit yi guerre yi nga gis yi gën a bon ci àdduna guerre yi fi am yépp boo xoolee ci pays jullit yi la nekk te pourtant euh, xaalis yooyu yépp budget yooyu yépp bu ko jëloon consacré ko ci pour lislaam jëm kanam kon yaakaar naa ne bari na loo xam ni lislaam du fa dana fa àgg waaye nag mooy gi li muy bari bi ci gën a garaaw mooy yàlla moom dañ koo tegadut yàlla foo dem fu ne gis jël nga koo xam ne nii wala teg nga koo xam ne nii presque kooku moo la moom nga gën a wóolu yàlla moom nga gën a gëm ca yàlla te yàlla nee na wala tajaalu lillahi andaaran wa antum taalamuun wala tajaalu lillahi andaaran wa antum taalamuun yàlla yi nag bari na lool te suñ boroom nag am na fullaam joo xam ni buñ ko wutalee ay dendaane mu toog dina seetaan mooy lu mel ne balaa bii yàlla wàccee ku ci ci àdduna bépp te feebar bi li ci gën a mett mooy psychose bi mu def ci nit ñi du feebar bi rek en tant que tel mais psychose bi mu def ci xeli nit ñi ndax kenn ku ne yaa ngi xalaat yow malade bi la waree ba nga war ko wàllaat ak ñeneen ak sa njaboot te loolu suñ borom moom buy nattoo ci ci xol ak xel lay lay lay dugg kon nag sëñ Tuubaa mi nga xam ne dañ koo yaakaara buñ toppeem njàngaleem dana nu delloo ci sunna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi sa dana nu delloo ci alxuraanil karim waaye ñun sama maas gi naan sëñ Tuubaa laa yaakaar sëñ Tuubaa laay topp waaye yàgg sëñ Tuubaa moom du ngeen xëy mukk ba jant bi soo bokk li ngeen bëgg bu ngeen xëyee ba jant bi soo yàgg sëñ Tuubaa bokk leen lu ngeen bëgg ndax sëñ Tuubaa moom ku ko xam-xam ne ne moom subaam ak ngoonam lépp yónnent bi sallallahu alayhi wa sallam alxuraanil karim te ñu mel ne man kenn ku ci référé référé wu ci ñooñu sëg dund rek ngay dund léegi nag ñuy sant yàlla di di ñaan yàlla ak di dalloo sun xel ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne maa ansala allahu daan illa anzala lahu shifaa kon loolu mooy dalal suñu xel ñaan yàlla yàlla na yàlla dimbale aarno ba balaa bi gaaw fee jógat di ziare sëriñ Abdul Lahad bu sëriñ Fallu xam ne moom mooy kilifa ak jataay bi di di ko ziara ak mbokkam yi nekk ci tribune yëpp kenn ku ne ñëw toogal fi njabootuk kër sëriñ Touba gi njabootuk maam maaram gépp ñu ngi leen di nuyu di sant ñëpp du ñaan yàlla yàlla na fi yàlla bàyyi ba déwén waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waa Peex sëñ Maam Thierno Mbacke moom Serigne Mountakha ñëw na léegi waaye xam nga ni sëñ Modou Kara Nooray ni dugg si na waaye dañu bëggoon bu ñu paree ñu dem délégation bi nga xam ni euh, Serigne Abbas Mbacke bu daaxu muxti moo ko yónni sëñ Bassirou Abdou Khoudous jiite ko ànd ak Cheikh Abdou mu bàyyi xadi ak seen rek ñoom ñëpp dañ ci ñëw.